léegi ne islaam mu ngi am jàmm ndax noo ngi mën a daje di mën a wax te it teqale wuñu diggante sunni ak chia yi ndax lépp lislaam rek la chia ak sunna di ko jéem a teqale daf koy daf nuy néewal doole ñun ñëpp leen benn principe lañu am te xam nga ne waa chia ñoom ñëpp ay ay sophiste lañ waa sunni moo am ay sophiste ak ñoo xam ne du ñu ay ay sophiyoon waaye Cheikh moom ñëpp ay sophiste lañu donc benn lañu yan yàlla def ci ñun def toppa def ko ci yéen yan yàlla dimbali ñu ci saayir ak ci baatin yan yàlla jàppale ñu jàpp senegal yàlla musal ñu ci feebar yi nga xam ne ñooy wëndeelu ak ñooy yi lor ñu continuer nag ñaan yi ndax amaan na euh, daanaa dégg Baye Niass ñu wax naan ñaan day moom mën na lu ne waaye def na lu ne kon nag noonu continuer di ñaan yàlla mbas mi mu mu mu ñu ko génnee ko fii yan yàlla def ci noonu dëggal taw taw ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatulah